الكنون رمنا سكور الذي بالكاف والنون ماذا يفعل من بادل ومكنون بلا بالوآد غير ممنون إليه خلدم تذاب بين وسوداني عن المناي وآن أفعال مجنون وجه من أتانا بما فرود ومسنون زند الغزائد للغاب أذكرهم بها ولساقما قد باق مسنون أنا بالقادر بل الذي تنام وجاد لي بعزيز المنو مدنوي ناديت مستخيزا وزوكر من وقبل أن خززا وادي وسنويني يلا يا يا خيوم خذ بيدي واهزم جناح يلا ويا يا خيوم خذ بيدي واهزم جنابي بزين منك مكنون أنت العفيس الذي أبخي بخايته فلتكفني كل ما خلق يخازيني كرمان يا مغني الجود بل ينسيني أنت الرحيم الذي أرجو بر يا خير سافر سفا كل بتحسيني أنت الكريم الذي تؤتي بلا سبب يا خير ساف سفا كل بتحسين شفيتني الآم فاق بل ما سكرت به إصابة نون قبل الفاي وسيل asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi nga xam ne yéen ànd ak ñun ci seen chaîne bi di 24 actu comme niñ leen ko doon waxee euh, euh, fexe ba ay bés yu nekk ñu andil leen benn reportage boo xam ne nii euh, wala niñ ko tuddee fii fan la fii fan la tey dañu daal di jël sunuy matuwaay dugg ci biir dëkk bu selewel di Touba ci quartier bi li nga xamul ne naan Ndaamaatu 1 boo ñëwee ba kër Serigne Modou Bousso jang nga jéggi tali bi mbeddum 30 bi ngay jàkkaarloo rek moom ngay daal di continuer dox ba ci sa kanam di nga gis benn tab da nga jot benn tabla boo xam ne ni dina féete ci sa wetu càmmoñ boo xool dañ ci bind bindu araab ñu tuddee ko këru xasida yi këru xasida yi nag di lu am solo loo xam ne nii euh, mu ngi fii ci dëkk bu sell bi di tuubaa di kàggug si Ahmadou Bamba ndax boo fi duggee rek boo duggee li ngay li ngay njëkk a yem lépp loo xam lu jëm ci wàllu mbind ku tedd ki Serigne Touba si Ahmadou Bamba ci ay xasida ak ci alxuraan ak ay nataalu ku tedd ki ak njabootam ak ñëpp ñoo xam ne ay nit ñu baax lañ da nga leen daal gis kon xam naa ñu fekk fi nga xam mooy Baye Moussa Thiam mi nga xam moom mooy jëwriñ bi eh, sëñ leen nuyoo ñu ngi lay siyaar tey nag 24 actu dañ ñëw fii eh, fi nga xam moo di këru xasida yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi sant xasida yi bu baax di sant borom Touba xaadim Moustapha xaadim rasulullah sula alayhi wasallam di sant yàlla buur bi subhanahu wa taala di julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama di sant maam Cheikh Ibrahima Fall bu baax di sant suñu ñaari waajur jël cant yëpp na defaat ko addi xaside yi euh, noo ngi leen di fayum nuyoo xamal na fii mooy kër xaside yi kàggu Cheikh Ahmadou Bamba euh, daara ji nag daara yi borom Tuubaa la kenn moomu ko borom Tuubaa ko moom xaside rek fi nekk ak alxuraan ak waa kër Sëriñ Tuubaa nitaale yi kenn moomu ko kenn moomu ko adduna ak àllaaxira borom Tuubaa moo ko moom man ñi fi nekk as njëwriñ rek laa mutuma sax jëwriñ jëwriñ ji mag ji dëgg dëgg dëgg mooy sañ xamsurum sëñ soin yi bu mooy jëwriñ ju mag ji nga xam ne laa ko teg ci loxoom mu jëwriñ ju mag ji waaye alal yi borom tubaa la kon nag tàmbalee ci borom tubaa rek ci borom tubaa lépp daal alal yi borom tubaa la coobare yàlla namelu yàlla kattanu yàlla ak sañ bu yàlla ak ndimbal si ahmadul xadim ak i tawféexam ak i jagleem ak i xaasam ak i xéewalam lépp borom tubaa la kon nag noo ngi sant borom tubaa jël sant yëpp def ko addi borom tubaa yéen ñi xam ne yéen waa mbooloo mi di saytu li ñoo ngi leen di ñaanal ci barke yàlla jëmale seenum liggéey kanam fa ngeen ko bëgg a yóbbu mu kawe seen njort lool ci barke Sëriñ Tuubaa te mu ànd ak barke ànd ngërëmal sëriñ bi jërë ngeen jëf yàlla na yàlla tàbbal ñu ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa liggéey bi li muy rëy rëy ak li muy tuuti tuuti ak li muy gudd gudd lépp na borom tax ñaar rek ci am solo na tax te mu nangul nu ko leneen amu ci solo yàlla na borom Tuubaa nangul liggéey bi te mu tax barke borom Tuubaa jërë jëf أشكى ولي خادما وبتكويني يغود لي كل ما أوى بلا سبب أكرم بي وبخير شكري يعيني ذات يخويني نيم العبيد الذي ما سجرت به أجارني وكفى خذلي بتلييني أني جلا سلاما كانت توافقني وبالهدى جادلي حقا بتمويله ما ويا بالتي كانت تسلسلني jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen ko ki nga xam moom moo fi nekk di Baye Moussa Thiam mu nga xam ne moom moo daara ji daara ji nag boo fi duggee euh, sa xel day daal di dem ci li nga xam ne moom la ko tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmadou ma daan wax ndax da nga fiy gis ay xasida ay limi limi xasida def fi nekk ci ci ci xasida gu nekk nag ci photo ku tedd ki wala ay njabootam. ne xeetu nataal bu nekk danga ko fi gis euh, boo xoolee li nga fi gis beneen euh, beneen kii boo xam dañ ko jagleel li nga xamoo di parfum yi ci na ko na nga xam ne moom la ko tedd ki daan defee naan yaa kitaabal karim anta habibi googee ñu doon wax boo ñëwaatee fii gis parfum yi xeetu parfum yu seer nga fi gis yoo xam sa xel daa day daati dem ci loolu kon ñu xam ne ku tedd ki Sëriñ Tuubaa si Ahmadou Bamba moom léppam rek dafa noppi démb tey doog a ñëw ndax fii boo fi duggee euh, li nga xam moom ngay jàkkaar loolu moom ku tedd ki rek moom moo lay daati li nga xam ne moom mooy nekk ci yow moom ngay yëg boo fi duggee ba boo fi génn ku tedd ki ngay daal muy béréb boo xam nag mat naa xam mat nay siyaare si mat nay bàyyi xel ci soriwul dara fii ñu ngi ci dëkk bu sell bi di tuubaa boo dikkee ba nga xam ni ñu ko waxee woon ci euh, ndaamaatu ni ñu koy waxee foo laajte këru xasida rek des na la ko wan nga mën fa dem siyaare fa maanaam yëg fa ku tedd ki ndax béréb la boo xam boo fa duggee rek moom euh, ku tedd ki Serigne Touba si Ahmadou Bamba moom nga fay daal di yëg muy béréb boo xam ne béréb bu am solo boo xam ne ni war na bépp mbokk taaliba wala bépp mbokk julli foo mën di nekk rek ci adduna bi war nga faa ñëw bàyyi xel béréb boobu ndax bérébu bérébu lislaam la lépp loo xam ne nii rek itteewoon nañ ko fa rek moom ma nga fa ndax xam nañ ne foofu moom si boo fa boo fa demee moom sëñ Touba nga fay daal fekk loolu moom leer nañu naññe ndax béréb bi képp koo xam dugg nga fi da nga am yëg-yëg boo xam ci sëñ Touba moom euh, daal jafe na béréb booy dugg nag ci di ko fa gis kon ñu ngi leen jox dig daje ba beneen yoon eh, di leen sant baax leen gërëm di leen wax ngeen eh, wéy di continé ci seen site bi di 24actu ànd ak yéen ci leneen ci feneen eh, ci fii fan la jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu binakaada yuxsini لك سنا والرداء وزور في أبد يا خير قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كمل مرادي بتمليك وتلقين وجي إلي الذي أرجو بلا كل فين وقبل يأفور العقين أنت القدير الذي لا شيء يعسله فر بخارك لي كل داخل لير بخارك ملان خرس الله سمدان سما وبكما وهم يلقى المجانين دادك اليوم يا قار يا ملك يا من شكوري له والحب يدنيني يا غير مون غني لا شريك له والأمد يلي وينجيني يا غير مون غنيم يلا شريك له في الملك والأمد ينجيني ويخنيني يا مالك الملك يا من جل الولدين رلي سوي الفسيتر ران وساينيني وجيلي اليوم آس رارا تلاسمني وكل والتفني كل شيء خد يعانيني وجيلي اليوم آس رارا تلاسمني takfini kulla shay